Thank you.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 leen dalal ci jotaay bi ñu bokk mi jotaayu fatawa tey doon jotaayu téeméer ak juróom fukk ak ñaar ñu ciy dalal cheikhana docteur Mouhammad Ahmad loo mu féete tontu seeni laaj cheikhana kon niñ ko baaxoo defee rek gannaaw ba ñu nuyoo suñu diglukat yi ñu ngi lay jox kàddu gi nga tijji ñu jotaay bi su ko defee ñu jublu ci liggéey bi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 sallallahu wa sallam alayhi wa ala alihi wa asxaabihi ajmaina amma baadu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñuy déglu kon dellusiwaat an dellusiwaat nan ànd ak yéen ci jataay bi di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq ak ndimbal ak yërmande kon Cheikh Abdallah gannaaw boo xamee ne ñi ngi fay nuyoo mboolem mbokk yi nga xam ne ñoo nuy déglu ak déglukati rajo bi Eh, kon dellusiwaat nañ kon bisimilah mën nañoo daal di ci liggéey bi. alhamdulilah Mouhamed Ndiaye di wote coofak ci Kawlax nena xadis boobi naan al ulamaau warathatul anbiyaai ba xadis ba jeex mu na xadis bu wér la akit fan lañ koy fekk ci téere sunna yi. alhamdulilah xadisu al ulamaau warathatul anbiyaa ñëw na ci ay téere yu takku euh, bari na ay wax yu ci waroom xam yi wax ci ñenn ñi ci ñàkk wéram ñenn ñi beneen wax waaye ala kulli xaal maa ngi lay yebal ci téere bu ñuy wax saxiixul jaame ba cheikh Mohammad Nasiruddin al Albani rahimahullah euh, xadis boobu wala kàddu googu yi tàbbi ci biirub xadis sax wax ndax loolu rek dub xadis am na lu ko jiitu am lu ca tegu kon euh, foofa da fa fekk ne wéral na ko wallahu taala alam barakallahu fiikum cheikhana mbokk mi nee na ndax benn nit mën naa takk mboole seen xadis yi nga xam ne jële nañ ko ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam wala boog aska nee nañ ko aska nee nañ ko ko mu ne ndax loola nit mën na ko ba sax yegg ci mën a xam ya mu takk ko xam ya wirut mu takk ko ba loola mën koo jural suñ ko laajee ci diina mu mën a dàq ne nangam ji saxul teg ko ci loola walla ji sax na teg ko ci loola alhamdulillah ndax mënees naa mokkal mboolem xadis yi jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa wala mboolem xadis yiñ koy askane ala kulli xaal su fekkee ndax mën naa nekk ci lim ci jublu mooy ndax xaj na ci mémoire bi doomu aadama am maanaam xel mi ko yàlla bindal mu doon ndab loo xam ne day taatan ab xam-xam di ko mokkal su dee day jublu ndax loolu xaj na ca moo kay xaj na ca lu dul loolu sax xaj na ca waaye nag ndax am na nit kuñ mën a wax ne diw sàngam mokkal na lépp lu mas a jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala luñ ko askane dañuy wax ne loolu mosuñu ko dégg li xam daal mooy ñu jëkk ña moom borom xam-xam yi xadis yu jëkk ya te nekk ay imaam ci xadis ñenn ñi dem ba tudde leen cheikhul islam ci xadis ñi ñu tudde leen amirul muminin ñooña day waroom xam-xam yi ci seenum maadu daanañ wax ne diw day dem na ba lim mokkal ci xadis moo ëpp lam ca mokkalut dem na ba am ku mën a wax ne mokkal naa téeméeri junni xadis yu wér kon nag lu mel noonu da ngay xam ne xadis yi bari na bari goo xam ne nit musta dogu ne man lépp luñ askan yonente bi mokkal naa ko te ma seen su ci histoire ko mokkal am naa nag loolu mu daaneele muy xam la wér ak la wérut loolu moom ci wàllu gëstu la dëgg la man ñooñee ma wax muy waroom xam-xam yi xadis yi yàggee te doon ay imaam ñooñu daanañ àgg foo xam ni ci xadis ak seenu jëflenteeg xadis ak yàgg ca soo leen tuddalee xadiis bu wérut danañ ko daal di xam wala ñu xoolee sanadu xadis bi rek jarut ñuy dellu fenn dañu xam ne bii sanad sanad ndax lii bokkul ci xadis diw sàngam yi bu xóot la boo xam ne eh, ci wàllu fatawa waaye ñu xam ne daal jamono ji moom ku bëgg a gëstu ab na te wérut boo jàngee xam-xamu xadis loolu dana la yomb allah naam barakallahu fikum mbokk mi sàmbaka lañ koy wax di wootee caawando laaj la laaj bi mu laaj laaj la boo xam ne xëy na mës na fee jaar waaye bamtu yàqut dara léeg-léeg mu ne xunuut ci jullik fajar lan mooy atteem alhamdulilah ok loolu koy jaaroon na fi waaye xunuut dafa am yaari xeet xunuut bi ñu tudde xunuutu annawazil mooy su fekkee ne dafa am lu wàcc ci jullit yi loo xam ne lu leen di lor la jóge ci ay doomi aadama imaam julli ba jóge ci rokkoom bu mujj ca julli ga mu def xunuut boo xam ne dana tagg yàlla màggal ko bàkk ko daldi ñaanal askanu lislaam yàlla musal leen ca lor jooje di wàcc ci seen kaw waaye jëmm joojee teg lor ci seen kawit mu ñaan yàlla ko loolu lañu ñu tudde xunóot nawazil moo ëpp nag ci xunóot yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon def ndax diir bu gën a gudd boo xam ne yonent bi xunóot na ko mooy yaari weer yàlla yoo xam ne nekk na di ko xunóot ci mboolem julli yi muy julli gu ñuy biral ak gu ñuy yalu moo ca yam ammaa weneen xeetu xunóot bi nag mooy xunóotul witr julli ba noppi ci sa julli guddi julli ga ca mujj muy witr nga defaale ca xunuut gannaaw boo xam ne jóge nga ca rukkoo ba loolu yonente bi alayhi salaatu wasalaam daana ko def ko mim saxe ci xadis xuseyn ibn ali waaye nag doonut lum saxoo woon da ko daan def léeg-léeg rek amma niñ ko miine nag noonu fii ci ngirum al imam malik rahimahullah mooy xornoot ci jullit fajar saxoo ko faw loolu feltuwuma ak dalilam maanaam lu koy firndeel ci wax yonent bi wala ci ay jëfam dajewuma ak moom tam wér ànd ak ne ngir mi ci boppam jàppe ko farata it jàppe wuñ ko it nag sunna waaye dañ koo jàppe ngëneel maanaam li ñu tudde fadila ba tax na ku ko bàyyi sax li nekk ci ngir mi mooy doo ko sujjootal kon daal taxul mu am booba doole bu dee ci wàllu wutal ko cëslaay ci sunna la amewul foofa doole bu dee ci biir ngir mi ci boppam it amewu fa nag doole ndax loo xam ne dañ ne la ngëneel la loo xam ne soo ko defee baax na soo ko defut wàññiwul dara diisu ko sujjootal lu mel noonu ci biirum ngir loolu joxuñu ko lool yitte waaye ala kulli xaal euh, noonu rek mooy bi gàttal masala mi ànd ne am na ay détails yoo xam ne xëy na fatawa laaju ko wallahu taala alam jazakum allahu xeyran cheikhana Ababacar Seck ci Nimzaat kii ci Kaolack day laaj mu ne ndax dagan na nit ki julli ci ginnaaw koo xam ne njabarkat la koo xam ne njabarkat la alhamdulilah njabar day bu fekkee moom lay def fiir loolu day mat a xam ndax du caagi ni kuy bindantu ay téere yi ñuy takk ak yëf yëfaan yi mel noonu rek dañu daal di wax ab jabar la jabar mooy kuy xamtu di def ay xàmb wala muy sangaate wala muy tuurloo nit ñi ay deret wala mu leen di wax lu dikk dikkagut wala muy feeñal lu nëbbu kooku mooy jabar bu ko wóoree ne loola lay def nag kooku yow moom amatoo sañ-sañ julli ci gannaawam donte attewuñ ko nag ne yéefar la sax waaye bu la wóoree ne jabar la yow la ngay xam ci sa xol mooy jabar moom kéefar la te ki ki nuur ci kéefar di ko jëfandikoo moo xam xam na ko moo xam xamu ko kooku moom du jaadu ngi julli ci gannaawam donte nag buñ ko doon atte ba lañ koo atte moom faaw ñu xamal ko li muy def wax ko bon ga ak la nekk su ko bàyyee alhamdulilah su ko bàyyee bu su boobaa ñu àtte ko kéefar wallahu taala alam ahsanallahu ileykum cheikhana mbokk mi Mouhamed Ka lañ koy wax di woote dëkk buñ naan bil ca boori njaafat nee na day ñii dañoo dugg ci woto yeb seenum xar waaye am ñeneen ñoo xam ne yabaale nañ seeni xar Euh, biñ demee bañ war a wàcc nag ñoom ñu wàcce xar moo xam ne bokkul ak seenum xar euh, xamuñu oto ba xamuñu it fa mu jëm mënuñoo daal defi pexe ba mën a jotaat ñoom ca seen xar wala boog ñu delloo xar mii nga xam ne moom lañ wàccee te moomuñu ko mu ne tabaski jot ñuy laaj ndax mën nañoo tabaskee xar moom ñi wala déet alhamdulilah ñoo ñi nga xam ne dañoo dugg ci oto jaawale seenum xar ala kulli xaal la jaadu mooy xar moom yi nga xam ne moom lañ yóbbu te moomuñu ko ña ca des itam yóbbu seenum xar ñoom te moomuñu ko eh, mooy ñu yëgle ko ñoom ñi nga xam ne ñooy laaj laaj bi wala kii di laaj laaj bi na xam ne la leen war mooy def ay communication yu bare bare bare bari yëgle ko xam le oto ba fa mu jóge woon ak fa mu jëm wan waxtu la wàcce woon ca oto ba ci benn dëkk la nekk yëgal ne ña nga xam ne ñoom la jaawleel am xar mi ngi leen di xamal ne xar moom yi mi ngi ci bërëb sàngam mi ngi mu yeewal leen di leen ko xontal kon nañu indi am xaram te jël seenum xar su fekkee def na ko lu yàgg nag ba naagoo ci ne lii moom feeñatut su boobaa la fa sës rek mooy mu xool eh, jiima farlu kem kàttanam xar mañ ko yóbbul ak mii mu indi man moo ci gën su fekkee ne mañ yóbbu day muy mosam moo gën mii mu yore su boobaa mbir ma mën naa amuk woyof waaye su fekkee nag mii mu indi moo gën ma ca des kooka de la gën mooy benn mu yeew ko fa ba kero seeni woroom di ñëw wala suñ dikkul su koy jaay wala mu koy jëfandikoo it na xayma lu toll ne lam jàpp ne nii mu indi moo ko gën a seere moomam loola mu xayma ko teg ko fi wetam ngir su ñooña feeñee mu jox leen ko su fekkee ne day rey xaram xarmee tax ñuy wax su fekkee feeñu feeñuñu mu sarxel leen ko ànd ak ne la gën mooy bañ a rey xar mi su fekkee tabaski ñëw na wala leneen lu tax mu soxla am xar su mënee am meneenum xar mu rey ko te bàyyi fa xar moom yi yonent bi sallallahu alayhi mi ngi ñuy nettali nit koo xam ne daa yore loon nit ab gàtt gisatul boroom mu bàyyi ko fa gàtt boobee di jur di jur di jur ba mu yàgg mu nekk gétt goo xam ne bu duggee ci aw xurtaanaka daanaka da koy fees kon néggandiku bu yàgg boobee ci loo moomut loolu cosaan la ci diine ci te it cosaan la ci ragal yàlla te kookee yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba mu koy nettali da ko nettali ci kaadarub ñoo xam ne dañoo maandu ñoo xam ne dañoo jub ñoo xam ne seeni jikko ak seen diine daf leen a tax a jëf jëf yu baax yoo xam ne bu jafe-jafe dikkee génn ca daal leen di yomb barakallahu fiikum cheikhana ustaaz abdallahi jàllo day laaj mu ne lan may atteeb li nga xam ne miin nañ ko ci jigéen joxane dafa bëgg tabaski te reyul tabaskeem da ko jox keneen da ca wutal keneen ku góor kooka war ko ko reyal mu ne dañuy faral di def jigéen ji day ñëw jël loxoom teg ca kooka su ko defee kooka daldi di rey nee na sax am na ñoo xam ne it dañ ci boole suñu bëggee reyum tabaski ñu jàppal xar mi noonu la ko laaje mu ne yooyu yëpp luy àtteem alhamdulilah mu ne loolu yi jigéen ñii di def su fekkee tabaski dafa ñëw muy suy rendilu jàpp ca mbaggum ka koy rendi la ñu jëkk a wax foofu rek mooy jaaroon na ko ci masalam tabaskim jigéen ñu xamoon xamle woon ne nekkul lu ñu sàkku ci jigéen a ah, bu ko bëggee def na kenn ko ko tere waaye daal jigéeni yonent bi sallallahu alayhi wa ak jigéeni saxaaba ya kenn toxalul fenn ci ne am na jigéen joo xam ne ju mos a la loola nag moo tax woroom xam-xam yi am na ci ñoo xam ne sax dañoo dogu moom ne jigéen bu tabaski waaye noonu dañuy wax ne sàkkuwuñ ko ci moom waaye su ko defee ne kenn ko teer ala kulli xaal la ca des mooy rendilu rendilu day ku ko mënut ku nekk ngay góor wala ngay jigéen mën nga koo def deflu rendi gu ñuy jaamu yàlla su ko defee mu wuutu la ca defal la ko waaye ñu xam ne jigéen ci boppam dana rendi maanaam chariatul islam terewul jigéen mu rendi su fekkee ku mën a rendi la ni ñu ko miine nga xam ne jigéen du rendi mukk faaw rek day woon ne ko kaa rendil ma loola tëlégaa ko waral waaye tëléga it la ko andi mooy ñàkk koo jàng kon ñu xam ne àtte ba daal mooy jigéen moom sañ naa rendi su fekkee ne man na ko su ko mënul bay rendilu nag kenn waxul ne day jël ab loxoom teg ko ci mbaggum góor wala mu def ko nenn daf koy wax rek rendil ma lii samam tabaski la so ko defee kooka buy rendi bay wax ne borom bi tabaraka wa taala lii ci yow la jóge ci yow lay telluwaat di wax allahu akbar tudd yàlla yemi def su ko defee bu mu ne an fulaan wala an fulaana lii tëbaskim diwa wala tëbaskim diwa sàngam mu jigéen ma noonu rek la wallahu taala alam jazakumullahu xeyran cheikhana Mouhamed Ba di wootee Ngéeñeen day laaj mu ne e, jullig àjjuma ci diggante ñaari xutba yi mu ne kan lañ sopp ci moom mu ñaan ndax imaam lañ sopp ci moom mu ñaan ma ma'muum lañ sopp ci moom mu ñaan alhamdulillah yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa ne bisub ajjuma day am na as waxtu soo xam ne bépp jullit bu ñaan boroomam ñaan bu baax yàlla dana nangu ñaan la mu ne waxtu woowee nag waxtu wu néew la am nay xadis yoo xam ne dañoo wax ne mooy diggante fi imaam toogee ci minbar bi ba keroog ñu sëlmal kon palaasi ñaan yooyu toog ci diggante ñaari xutba yi ci la bokk ndax imaam jamono yi muy xutba moom kenn mënut ta nekk di ñaan waa xanaa su demee bay daaneel di ñaan nit ña di di ko déglu wala ñuy wax amin weneen waxtoo mooy gannaaw takkusaan su fekkee dem nañ ba jant ba di lang di bëgg a sox ñaan googi yonent bi alayhi salaatu wassalaam di béglee ne ku ñaan ca waxtu woowa ñu nangu la suñ ñaan loolu ñëpp a ko bokk ku di jullit rek yaa ngi ci biir kon imaam jaag maamum jaag ka julli warut ba mu toog ci këram sax mën naa ñaan kon jamono yi imaam xutba ba toog ci diggante ñaari xutba yi danaa faral di wax ne wari naa war naa maye ab espace tuuti boo xam ne nit ci danañ mën a gaaw ñaan su ko defee moom it mu ñaan ala kulli xaal ñoom ñëpp ñooy ñaan wallahu taala alam barakallahu fiikum cheikhana abdallahi fafana di woote koy lal nee na day dégg ñu naan képp koo xam ne danga am màndargaay sujjóot ci sa jë mu ne sa yaram araam na sawara muy laajte ndax loolu wax ju wér la wala déet alhamdulillah ndax ku am màndargam sujjóot saw yaram xaraam na sawara loolu de dajewu ma ak moom ci ab xadis te loolu keneen ku ko mën a wax ku dul ku ñuy wax yu muy yonent ba sallallahu alayhi wa sallam su dee saxaabi jàpp ne da nga déggee ci yonent su keneen nag ñu jàpp ne wax la ju dëgërut ginnaaw amul dalil ala kulli xaal borom bi tabaraka wa taala ba muy ci nit ñu baax ñi def ne siimaahum fi wujuhihim min athari sujud seeni màndarga mi ngi ci seeni jë ci jeexiti sujjuut waaye loolu de na ko boroom xam-xam ya déggee bokkut ak ay ñuul ñuul yu ñuy gis ci ab jë wala luy nuroog ab tut bu nekk ci ab jë dañoo wax ne màndarga moom yi borom bi tabaraka wa wax nekkul xis si nekkul màndarga mu ñu teg bët wala ñu di ko laal waaye ak leer la gu borom bi tabaraka wa taala di def ci xar kanam ba boo xam ne boo ne koo jàkk am na looy yëg wala sam xel lay dellu ci yàlla yow mi nga xam ne yaay gis jëmm jooji asara si it dañ ci jublu mooy jeexiti julli ya ñuy julli guddi waaye jubluñ ci jootu kese waaye jëmmi julli ci boppam moo ko tax a jub moo tax waroom xam-xam yi dañuy wax ne eh, jeexit woo xam ne daa jóge ci sujjóot loolu firndeelut loola ndax yonent bi sallallahu alayhi wa moom amu ko woon te képp koo xam ne yaa ngi am mandarga muy wane ngëm yàlla ci moom nga ko tànqe waaye loola ak leer la goo xam ne sun borom tabaraka wa taala moo ko def ci xar kanam waxu sutit nag leerug xees wala leerug ñuul déedéet du foofa de waaye ab yëg-yëg la boo xam ne boo nee jàkk nit ki seeni bët daje aw melokaanam am na lu sun borom tabaraka wa def ci moom loo xam ne daf lay e, fàttali sun borom tabaraka wa taala wala daal am na loo yëg loo xam ne ci xeetu mbaax borom bi tabaraka wa taala def na ko ci xar kanam boobee ngir taxaw goo xam ne mi ngi koy taxaw ci santaan yi sun borom tabaraka wa taala yi mooy ñi nga xam ne rek léeg-léeg nit yi dañuy wax ne diw ku ko gis danga koy sopp lu tax ñu di ko sopp kenn xamul lu mu doon ndax ab taar la déedéet léeg-léeg yorut dara sax nag ci ab taar léeg-léeg it am koo xam ne dafa taaru ba jéggi day waaye taxul mu mel noonu nag man nga koy gis te du tax nga daal di koy sopp kon ak leer la gu sunu borom tabaraka wa taala mooy tolog inna alladina amanu wa amilu noonu la ko borom bi waxee nee na ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla boole ko ak di jëf jëf ju baax sàmm ndigal yi te wattandiku tere yi sun borom tabaraka wa taala mooy bind ak cofeel gu muy def ci ñoom nit ñi ku leen gis bëgg leen yal nañ ko sun borom tabaraka wa taala may naam jazakumullahu xeyran cheikhana mbokk mi day laaj mu ne lan mooy attee ki nga xam ne dafa wax soxnaam ca jamono jëm koy fase ne ko daal su nammatee ànd ak moom euh, su boobaa kuy njaalo la noonu daal la ko wax kàddu gu mel noonu la ko wax jamono jëm koy wacc nee na jamono di dox ba mu bëgg a takkaat soxna soosu mu ne ndax lu mënu lay doon wala déet alhamdulilah xam naa kuy fase jabar war nga ànd ak sa sago ba li ngay wax nga xam lu mu doon sa mer bañ laa jàpp ba nga wax loo xam ne ëllëg da nga ci génnaat kii wax jabaram gannaaw bu mu ko fasee ne ko suma àndateeg yow dama njaaloog yow su fekkee def caa jublu ne yow de ab jàmbur ngay doon ci man ba faw duutuma la takk su boobaa wax jooju dana am maanaa su demee nag ba eh, jëmmi jamono ñëw mu takk ko su boobaa dañuy wax ne moom mii eh, wax na lu amut maanaam bàkkaar ba muy am bàkkaaru fen la waaye nag firiwul ne ndaw si du dagan ci moom ndax lam wax moo amut maanaam munta doon jabar ba noppi di njaaloo yooyu ànduñu maanaam boole yoo xam ne yu àndul munta nekk maanaam bu gisoon jigéen joo xam ne du soxnaam mu ne kii day saa boo xamee ne ànd naag moom ci sëy njaaloo lay doon wax jooju menn maanaa rek la am mooy du ko mos a takk mukk waaye bu moom nag ba mu yàgg mu takk ko wax jëm waxoon yàqu na su moom duutu doon am njaaloo waaye nag euh, fen na wax na loo xam ne barakallahu fiikum cheikhana mbokk mi mu ngi wootee bitim réew nee na fam ne day faral di gis am ñoo xam ne daal suñu accidenté léeg-léeg jëm yegg ci war a faatu dañuy jël ci ñoom ay cër yoo xam ne dañ koy denc ngir defal ko ñeneen mais nag ñooña luwaa moo leen ko may euh, jamono ji nga xam ne yaa ngi wér dara jotu la sañ nga bind dénkaane ni daal soo demee bay faatu mën nañoo jël lenn ci say cër ngir euh, faje ko ñeneen ne ndax ab jullit nag moom sañ na loolu sañ naa dénkaane lu mel noonu alhamdulilah toxale ab cër ci nit yóbbu ko ci keneen moo xam cër boobu nag organe bu mën a doon ci organe yi nekk ci yaramu doomu aadama te nangu toxal sharia al islamiya moom terewu ko ci niñ ko jàngate ci këri fiq yi gën a mage ci jamono ndax loolu dafa bokk ci nawazil yi nga xam ne amul woon bu njëkk waaye borom xam-xam yi nag su fekkee daa am masala mu wàcc te amatul woon te amagul woon ci li weesu lu tee dañuy delsi ci qawaidu sharia ak ci maqasidu sharia régal yi nga xam ne moom la lislaam teg muy sharia ak itam sharia ay jubluwaayam yi gën a kawe ci wàllu fiq su ko defee yooyu ca lañ koy xool ba xam lii lan moo war a doon ab atteem bi nga xamee ne dem nañ ba jëmmi jamono médecine àgg ci ñu mën a dindi ab xol ci nit defal ko keneen nit muy dund mën a dindi rein defal ko keneen muy dund loola ci lañ xam ne gëstu ko jot na waroom xam-xam yi gëstu ko gis ne loola lu dagan la su fekkee ne ka koy def ci boppam boroom xol ba walla boroom réunion ba moom ci boppam moo dénkaane ne su génnee àdduna te fekk cëram yooyu ñu ngi mucc moom joxe na ko fi sabilillahi ndax keneen mën caa dund kon ci ndigalam la mën a doon wala ndigalul kenn ci ay ndonoom ñi ko war a doon loolu mooy benn sart bi beneen sart ba ca des mooy diisu ko jaay ku koy def ku ne danga koy def fi sabilillahi waaye bu ca am jaay duggee duutu dagan wallahu taala alam barakallahu fikum cheikhana mbokk mi nee na ndax dagan na ci ab jullit jamono ji muy woote di xëcc nit ñi ci lislaam muy tegtaloo di jëfandikoo e, téere ñeneen muy téere yi ahlul kitaab lu mel ni at tawraat wala al injil ngir xëccee ci ñeneen ñu dugg si ci lislaam su ko defee mu di ca jukki ay wax di ko di ca tegtalu ni ki noon it ndax dagan na ci ab jullit muy gëstu di xootal ak gëstu ci téere yooya alhamdulillah su fekkee woote la ci lislaam day lépp loo xam ne soxla na ko ci li ñuy woo nit ci lislaam di ko convaincre ngir mu dugg ci loola moom mu ngi ci alquran al karim mi ngi ci sunna si yonante bi sallallahu alayhi wa sallam kon jëggaane gi moom jaru ko ndax mënoo jëggaani lu baax te nekkul ci alxuraan ak sunna téere yi weesu woon la ca baaxoon lépp te walaabal di continuer loola alxuraan jël na ko làmboo ko la ca des mu doon loo xam ne lu ñu folli la teg ko fële benn roq rek la boroom xam-xam yi di wax ne mën naa nekk te looloot seen ijtihaad la muy ki nga xam ne dafa dëkk ak ñoo xam ne téere yooyu lañ gëm te nekk ci moom mu jël ko en tant que boroom borom xam-xam bu mag boo xam ne duuta loru ci lenn ci kàttanu yàlla mu di leen génneel ci seen biir téere yooyee yoo xam ne mën na leen cee convaincre ngir ñu xam ne lislaam a wér moo xam nag loolee mu leen di génneel day doon luy wéral lislaam di leen wax ne ay tomba ngi ci yoo xam ne dénkaane nañ ne saa bu lislaam dikkee nañ dem wuy ji ko mi ngi nii won leen ko wala mu doon loo xam ne day wéral ne téere yooyu yi day lépp jógewut ci suñ borom am na ci loo xam ne waxi nit la mën a génne luy wane ni lii yàlla du ko wax lii nit dong ko mën a wax di leen ko won ngir ñu xam ne téere yooyu wératut su fekkee ne ci anam googu la rek ñu ne loolu ay dagan waaye loolu nag ay nit yoo xam ne spécialiste la ñu doon eh, ñoom lay dagan ci ñoom waaye nit kuy fortaatu xam-xam moom téere yu mel noonu dañ ko koy tere yonent bi alayhi salaatu wasalaam kuy jàng dara ci tawreet ñi nee nañ Omar ibn al la ci yi gën a bari dafa mer ne ko day la ca baaxoon lépp day indi naa ko mu sel lool te it day Moussa bu doon dund tey menn pexe amu ko lu dul topp ma rek ci lii ma indi daal di loola mer mu tàng kon nag loolu ubbi luñ ko ñëpp bu ko jóg rek euh, téere bu tàbbi ci sa loxo wala loo gis lu ne sañ koo jàng wala nga sañ koo déglu ndax amaana la lay lor mën na caa nekk wallahu taala alam ahsanallahu ilaykum cheikhana soxna si dey nee na borom këram dafa tukki eh, bàyyi ko gannaaw diirum ñetti at yoo xam ne saa yu ko diggee rek ne dina ñëw waaye day mujj fomm mu ne mu dem nag ba loola métti ci moom moom soxna si ci boppam fas yéene nas aw tukki ngir fekki borom këram mu ne borom këram aaye ko tukki googu li muy laaj nag mooy lan mooy li ko war ndax moom sañ naa wëyal tukkim jooju te bàkkaar du ko ca fekk walla boog li ko war rek mooy mu toog su mënee xaar xaar alhamdulilah jigéen jooji boroom këram tukki ba mu yëg ne mëntu la muñ lañ ca mën a wax rek mooy bu dee ci wetu ku góor ki lu mel noonu jaaduwut su fekkee ne ku mën a ñëw la su fekkee ne amul gàllankoor bu ko tënk ba mënatu la ñëw daal ñàkk gaa ñëw moom bàkkaar ngi ci ndax mu ngi lor jaamub yàlla boo xam ne fam ko bàyyi moom moo ko fa tënk leneen li ca des mooy ci côté ku jigéen ki na xam ne lislaam dafa xaraamal jigéen mu tukki moom dong tukki boo xam ne mat na vingt-quatre heures te àndut ak ku koy gunge ci ñi ko jege su fekkee diggante fi muy déparé ba àgg ci jëkkëram vingt quatre heures a ngi ci yoon wi mu door a àgg ca moom nga xam ne tukki bi tukki bu daganut la leneen la ca des mooy boroom këram nee na ko bul ñëw kon ba léegi ak lu mën a xew soxnaam la te ci ndigalam la war a wéy su ne ko bul ñëw na toog ndax nag bi mu ne koo toogal rek day daal di doon kuñ mel ni kuñ tëjub kaso sañatu la def benn yëngatu pour génn ci jafe-jafe boobu amu kay ki ca këram tukki bàyyi ko fa mu yëg ni moom mii mi ngi lor te mën na ko tàbbal ci fitna bala tàbbi ci fitna sañ naa wax ak boroom këram ne ko benn nga ñëw fii ak dele sàngam wala su fekkee mënoo ko nga may ma sama baat ma libre su fekkee borom kër ba may na ko baatam alhamdulilah mu dem yoonam su fekkee ñëw na it mu xam ne kon ñëw na ñëwul mayu ko baatam sañ naa def ay jéego yu ko génn ci sëy boobee ak jéego yi nag yu mën a doon moo xam ne dellu ca imaam ya façon sëy bi ñu tasaat ko wala day dem ci tribunal ba ñu tas sëy bi waaye moom ginnaaw mënatu la muñ daal doomu aadama ju tukki nekk ci boppam ko liggéeyam moom du tax mu nekk di loru wala mu di ko tàbbal ci loo xam ne lu yàlla di tere la noonu rek la wallahu taala alam alhamdulilahi kon mbokk yi ñu ngi delluwaat di sant suñu borom subhanahu wa taala ci ay tawfiqam di ko ñaan mu dolli ñu xam-xam waaye may ñu kàttanu jëfe dëgëral suñu gëm yàlla e, dëgëral suñ suñuy jaamu yàlla te nangul ñu ko guddal fan wi yokk wér gi Cheikhana ñu ngi la koy ñaanal yàlla yàggal sa taxawaay dolli la fan dolli la kàttan dolli la xam-xam di sant mbokk yëpp képp koo xam ne yaa ngi topp fii ci biir réew mi wala ci bitim réew ci rajo Keppaar FM 99.7 ci seen jotaayu Fatawa ñu ngi lay sant di la gërëm te. di ñaan suñu borom subhanahu wa mu defal ñu tawfiq kon Cheikhana ñu bàyyee la kàddu gu mujj gi rek niñ ko baaxoo defee nga tëjal ñu jotaay bi ñu digg mbokk yi daje insha allahu ajum ji di ñëw ci seen beneen jotaayu fatawa allahuma salli wa sallim wa barik ala muhammadin Cheikh Abdallah di ci ñaan yi di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu dolli ñu tawfiq ak ndimmal ak yërmande te def jàmm ci sunu réew ak tawfiq ak xéewal ak naataange ak lu lew tasaaroo fi ba lépp loo xam ne lu lewut la rek doomu aadama yi sori ko di tàggu mbokk yi kon rek ba ci jataay bay ñëw ci kanam bi ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu àggale na ci ci ak wér ànd ak tal